ñëw fii pour euh, pour euh, jooy li nga xamante ne moo nekk suñu biir xol mooy également pour ñëw ñaawlu taxawaayu nguur gi ci li nga xamante ne moo dal ndaw ñi nga xamante ne ñoo daanu géej parce que bu lu tolloog bu lu tolloog juróomi téeméeri ndaw daanoo géej te nguur organisé wul deuil national dafay laaj peuple bi jël responsabilité am à travers des organisations de la société civile ou même d'autres organisations loolu moo waral fii suñ taxawaay pour wax ni effectivement taxawaayu ñaxtu la en même temps ci li war a jëm ci ndaw ñi ñu jëmale ko ci ndaw ñi balaa ndaw ñi balaa muy balaa mbir mi di jéggi dayoo parce bu ñu continuer di noppi lu raw lii mën na fee am et chacun d'entre nous chaque sénégalais a une responsabilité par rapport ak li nga xamante ne moo nekk di xew ni waaw mënuma xam ñaata mais bëri nañ ndaw ñu bëri nañ organisation yi lëkkaloo bëri nañ mais li ëpp solo ce n'est même pas nombre c'est la symbolique la symbolique de l'indignation mooy taxaw ne effectivement lii am na suma réew la amee samay ndaw yi réew la dal ñi mu dal njaay lay njaay lañ sant jóob lañ sant kamara lañ sant ah gujaabi lañ sant mendi lañ sant gomis lañ sant ay sénégalais lañ ay góor lañ ay jigéen lañ ay mag lañ ay ndaw hmm? bu ñuy wax ay mag ay ndaw mooy ñu toll ci bëgg a doon dara te mënuñu ko doon seen seen biir réew parce que seeni réew joxuñu leen opportunité bi parce que effectivement jaay nañu géej gi parce effectivement li waroon jëm ci mbay mi ñu war ko jël jëmale ko ci ndaw ñi jëm na ci ñeneen ak ñeneen suuf seeg lu nekk ñu ngi koy pasar pasare moo ñu jural situation bii nii donc dafay baax ñu génn taxaw wane ni li xew neexuñu parce que bien vrai que yàgg nañu amal ay manifestation yoo xamante ne jooy lu mel nii la euh, jooy jooy impunité la jooy mauvaise gouvernance jooy euh, injustice yooyu yëpp tey dafa spécial li spécial tey boo leen ko xoolee li ko mandargaal mooy yére yu ñuul yi nit ñi sol ak dal bi nit ñi àndal ah, pour effectivement wax ni ah suñuy doom ñoo lab ci géej gi suñuy doom ñoo mujj ci gémmiñu requin yi suñuy doom ñoo mujj ci gémmiñu baleine yi effectivement il faut que ça s'arrête waaw xam nga mooy effectivement parce que amatuñu ay possibilité seeni biir réew parce que effectivement euh, ñi leen jiite firi wuñu seen i gént man boo ma jiitee te firi woo sama gént damay dem feneen fuñ ma mën a firilee sama gént parce que boo may jiite da may mën a géntuloo mënatuñu géntuloo ndaw ñi il faut que ñu am ay njiit yu mën a géntuloo ndaw ñi pour wala ay njiit yoo xamante ne bu ndaw yi géntee ñoo wax leen ni lii lañ gént ñu mën a firi li ndaw ñi gént mënuñu firi li ndaw ñi gént ndaw ñi dañuy seeti feneen wuti feneen làqu làqukaay comme ni ko rappeur bi dan doon waxee gàddaay wuti feneen làqukaay pour effectivement mën a am dund bu gën waaw wax na ci mais dañu tollul ci wax dañu toll effectivement ci di ko jëfe ba pare mu saytu ñi nga xamante ne jëloon def leen ko jëmale leen ko ci ndaw ñi te amul benn jeexital loolu il faut effectivement qu'on Euh, waaw mais ñu taxaw ñu xam ni xeex bi nit ñi di xeex du xeexu caaxaan il faut que ñu ñëw rejoindre ñu ci xeex bi parce que jël gaal moo gën a metti xeex place de l'obélisque nañ ñëw ànd ak ñun ci xeex.